ijaal kalaami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida saddid lisaani nawir janaani safi amaani wa sid baraa'i asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi sant yàlla na mu yellee ci jëmmam ja te as njaamam lottu ci lool di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndijji bopp yi te mooy seyduna muhammad sayyidu lkawnayni wattaqalayni walfariqayni min urabin wa min ajami sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi julli ci moom te koy ñaanal jàmmi yàlla ak xéewalu yàlla yàlla na yàlla jox ko ko mook ay ñooñam ak ay saxaabaam ak mboolem ña ko toppoon di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy dégg suñu kàddu fu ñu ko mën a déggee nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo lislaam boobu nga xam ne moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke nuyoo boobu nga xam ne waa àjjana moom la ñuy nuyoo nuyoo boobu nga xam ne mooy nuyoo bi gën a riis mooy lañu yàlla boole te mooy damoo boole baat yi ma tudd te mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci Serigne Touba Xaadimu rasuul di leen nuyu fii ñu leen baaxoo nuyoo ci seen télé Rewmi TV waaye seen émission bii ngeen baaxoo am dimanche bu jot 22h ba minuit te mooy keppaaruk mag ñi ngeen baaxoo ko ànd ak seen mbokk sëñ Baara Mbàkke muy xewee fii ci Sodida immeuble Alxaaji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké Falilou ñoo ngi leen di nuyu nuyoo boobu nga xam ne moom la ñu yàlla boole waaye di ci jiital ci nuyoo bi borom ngëneel Cheikh Mouhamadul Muntaqa nay naal di yeggale tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere waaye nuyoo boobu moom la ñuy yóbbu Tiwaawoon jox ko suñu way jur wayjur Cheikh Aboubacar Sy Mansour di koy ñaanal yàgg ak wér ba mottali mboolem ay naalam moom mboolem jabootu xadra Malik yi waaye nuyoo boobu it la ñuy yóbbu leew na ñaseen eh, jox ko eh, Baye Cheikh Tidiane waaye nuyoo boobu it la ñuy yóbbu Medina Baye jox ko Cheikh Mahi waaye nuyoo boobu it la ñuy jox Thierno Basir mi nga xam ne eh, moo amee jataay maam Cheikh Omar Fouti waaye nuyoo boobu it moom la ñuy yóbbu Canaba moom la ñuy yóbbu Ndiassane moom la ñuy jox mboolem kër yi diine yëpp waaye nuyoo boobu it la ñuy jox mboolem umma islami bii mboolem ñi nga xam ne ñi ngi dégg suñu kàddu di ko safoo te koy saxoo di topp ci réew Rewmi TV canal 108 wala ci Rewmi FM 97 point 5 mbokk yi auditeurs auditrices wala téléspectateurs téléspectatrices yi nga xam ne yéen a baaxoo di topp seen émission keppaaru mag ñi niñ ko baaxoo defee dimanche bu jot incha allahu taala bu ñu fi teewee fàttaliku kenn ci suñu mag ñi ñan ñooy mag ñi mooy ñi nga xam ne yónent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla yónnee mu ko yónni woon bi mu demee def ca la ko ca yàlla digal. ba bës ñëw suñu boroom ne ko al ak akmaltu lakum diinakum la mu waxoon mooy lii ma leen bàyyil balligu anni walaw aaya mooy li ma leen bàyyil jottali leen ma ci donte benn France la donte benn France la waaye saxaaba yi la dénkoon loolu saxaaba yi dénk ko taabi'a yi taabi'a yi dénk ko taabi'a taabi'a yi waaye noonu la royaatee ba agsi ci suñuy maam suñuy maam nag li tax ñu war leenoo waxtaane mooy ñun dañoo judd rek doon ay jullit mooy ndono lu rëy li nga xam ne moom lañ sàmm mu jugee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam saxal ko ci suñuy baay waaye suñuy baay saxal ko ci seeni doom seeni doom saxal ko ci ñun ñii ba tax ñu mën a xam dara ci li fi aleyhi salaatu wasalaam bàyyi looloo tax ñoom ñu war leen a waxtaanee seen njàmbaar bu rëy googu nga xam ne moom la ñu def waaye liggéey bu rëy boobu nga xam ne liggéeyal nañ ko yàlla looloo tax émission bi ñu jagleel ko. ñu mag ñooñu nga xam ne ñoom ñoo taawu lislaam ji ba tey ñun ñu mën cee jot man koo jariñoo moo tax émission bi tudd keppaaru mag ñi liñ ko baaxoo defee mooy saa yu ñu fi teewee danañ jukki kenn ci suñuy mag ñu fàttaliku ko waxtaani ay jaar-jaaram waaye waxtaani it li nga xam ne moom la euh, réalisé waaye it léeg-léeg ñu indi ko ci beneen forme mooy jukki lenn ci waxi mag ñi waaye jàngat ko nag émission bi ñu mujjee def ñu ngi doon waxtaani góor gu baax góor gu baax waliyu saalum bi nga xam ne moom la ñuy wax alhaji omar ndaw ñoo ngi ziyaara ak njabootam cheikh mohamadul basir fi mu nekk ni mooy ab xalifaam di ziyaare mboolem waa tund saalum waaye mboolem taalibi seex yëpp it fu ñu mën a nekk ñoo ngi leen di jotal ziyaara boobu kon seen émission keppaaru mag ñi noonu lañ ko baaxoo defee dimanche bu jot tey nag incha allahu taala ñu fas yéene ko indi ci forme fàttaliku sant Serigne Touba sant Serigne Touba xaadimu rasul ànd koog waa daaira nooru daaray nii bi nga xam ne ñoo féete Touba mbaam nekk ci commune u Bambilor waaye ci njiital Serigne Bassirou Mbacké ñoom lañ dalal tey euh, ci délégation bu mag bi nga xam ne euh, moom lañu àndal man moom lañ àndal moom lañ fas yéene àndal waxtaan wi Euh, ñoo ngi ñaanal bu baax a baax a baax Cheikh Mouhamadoul Bassir it moom it di ko sant bu baax a baax ci taxawaayi mag ñi nga xam ne amee na ko ci dëkk boobu ñoo ngi ko ciy ñaanal bu baax a baax suñu borom dolli ko sàmm ba mottali ci mboolem ay yéeneem kon sant Serigne Touba la ñuy waxtaane damaa yaakaar ne xam naa ne ñi ma ciy àndal ki ci jiitu mooy si Omar Cissé al Oustaz Cheikh Omar Cissé moo ma féete sama wetu ndeyjoor waaye Serigne paam Ndiaye moom moom ma féete ci sama wetu càmmoñ ànd na yog Serigne Ibrahima seen mu gunge leen ak euh, suñu sëfoor ak mbooleem délégation bi yëpp it ñoo ngi leen di sant bu baax a baax ci teewaay bi ci teewaay teew gi ngeen teew fii ngir ñu ànd liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéeyal mag ñi xam naa sëñ Omar Cissé moom laay jox euh, mu daal di nuyoo rek su ko defee ma jox Serigne Pam Ndiaye mu nuyoo su ko defee ñu daal di dugg ci waxtaan wi incha allahu taala Serigne Omar fal tatafaddal mashkura. auzu billahi samil alim mina seytaan rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتبارك الحركات وتضعف الحسنات والصلاة والسلام على نبي رحمة وسفيع الأمة وكاذب الغمة وعلى آله وأصحاب الأئمة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum salaam wa rahmatulah. ginnaaw bu ñu sante yàlla. kennal ko ci nguuram. julli si sangu sang yi mu di sayidina muhammad alayhi salaatu wa salaam tabaarakallahu mi nga xam ne mooy daj dëpp gi tabaarakallaahu mm-hmm. mi nga xam ne mooy bëgg texe gi tabaarakallaahu mm-hmm. mi nga xam ne mag ñëpp si moom la ñu rawee tabaarakallaahu mi nga xam ne moom la yàlla ne su ngeen bëggee ma bëgg bëgg leen ko mm-hmm. waaye soo leen bëggee ma bëgg leen bëgg leen ko mu di sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam tabaarakallaahu noonu la ñuy def tam daal nuyu mbooleem téléspectateur ak auditeur wala auditrice tabarakallahu yi nga xam ne ñu ngi topp euh, réew mi TV ak réew mi FM tabarakallahu di leen nuyu di leen ziar ziar bi nga xam ne moo yell suñu diggante ak yéen tabarakallahu fu ngeen mën a nekk si biir réew mi ak bitim réew fekk nañu leen fa daal di leen nuyu ziar leen ziar bi nga xam ne moo yell suñu diggante ak yéen tabarakallahu ah waaye tamit di nuyu mboolem kilifa diine ak kilifa aada fu ñu mën a nekk tabaarakallaahu si réew mi ak bitim réew tabaarakallaahu comme ni ma ko waxee rek ah jiital si suñu sëriñ suñu kilifa muhammadinil muntaxa tabaarakallaahu di ñaan yàlla sàmm ko aar ko te teraangaam gën a yokku ndax comme ni ñu koy faral di waxee mu hmm. teraangaam yokkoo rek mbaax dina yaatu tabaarakallaahu kon nag yàlla na yàlla yokk teraangaam waaye itam nuyoo ko bu baax baax sëriñ Babacar si Mansour tabaarakallaahu mm. mm. al xalifa moom itam tabaarakallaahu mm. borom tekk gi tabaarakallaahu di ñaan yàlla sàmm ko aar ko may ko wér waaye ñooñ la ñuy jël nuyoo bi teg ko seen loxo rek tabaarakallaahu ñu jottali ñu ko mbooleem xalifa yi nga xam ne tabaarakallaahu ñi ngi si biir réew mi ak bitim réew tabaarakallaahu waaye itam nuyu bu baax a baax a baax ah directeur télé bi ak rajo bi mm-hmm. PDG bi di ñaan yàlla moom itam sàmm ko aar ko mm-hmm. Mm-hmm. te yokk teraangaam bu baax a baax masha allah ah jaajëfal bu baax a baax suñu sëriñ mm. suñu sang bi nga xam ni ah, moo ñu dalal tabaarakallahu bu di Mouhamadou Lamine Bara tabaarakallahu Mbàkke masha allah eh, di wax ne ko bég nañu bu baax a baax ci jàkkaarloo ak yow tabaarakallahu nuyu Moussa Ndiaye itam comme ni mu ko waxee suñu mbokk Ibrahim mi ànd ak ñun macha allah euh, ak mbay mi nga xam ne mu ngi fële euh, nekk chauffeur bi macha allah baarakallah am na solo lool tabaarakallah Cheikh Omar Cissé nuyoo bi jotal jot na jotale na baarakallah yàlla yàlla fay la yiw ñaan yooyu it ñu ngi ñaan ngeen yaatal ko mm-hmm. ndax kër gi mm-hmm. Euh, benn la ci jumtuwaay yi nga xam ne jumtuwaay yi yaata lislaam la mm-hmm. ñoo ngi ziyaara bu baax a baax a baax a baax kilifa kër gi alxaaji Bañik Jóob mm-hmm. di ko ñaanal bu baax moom it suñu borom doon li koo sàmm ah, ak euh, alxaaji Moustapha mm-hmm. mi nga xam ne mooy jiite liggéey bi ñu ànd ak imam Malik ci réalisateur bi ci mm, mm, mooy mooy réalisateur bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom ñoom ñoo séq liggéey bi ñoo ngi sàkku yi ngeen ñaanal ko xam naa dama ko bëggoon a indi ci mujj gi waaye comme tudd nga ko <laughs> ma doxalee ko foofu jumtukaay yi nga xam ne mhm. moom la ñuy taxawee taxawoo mhm. lislaam la mhm. baarakallah xam naa damay jox sëriñ Pape Ndiaye moom it mu daal di nuyoo rek insha allahu taala ñu daal di door liggéey bi macha allah auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim bu ñu sant yàlla sant sëñ taxa Mbakke sant Serigne Bassirou Mbakke di sant mbooreem xalif généraux yu toog ci réew mi mhm. di nuyu ñëpp mhm. ñuy seetaan mhm. à travers rajo réew mi TV réew mi FM ak euh, télé bi di réew mi TV di nuyu mboolem jullit nuyu nuyu mboolem taalibe nuyu tamit mboolem dëkkandoo yu nekk sa Touba way mbaam mhm. di teg bi nag si loxoy sëñ Basiiru Mbàkke mu wasaare lañ ko si mboolem jullit mhm. ñu ngi sant bu baax mhm. sëñ Baara Mbàkke si dalal bi ñu dalal jaareel ko nag si yow nga sant boobu si ñëpp directeur yi rajo beeg technicien yeeg ñëpp ñu ñu teewal fii barakallah leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa baarakallah sëñ Fam Ndiaye moom it nuyoo bi jot na jotale na xam naa li ñu fi da tax a daje tey mooy dañuy fàttaliku sant Serigne Touba gi nga xam ne moo baaxoo am Touba waaye mbaam nga xam ne incha allahu taala mi ngi war a doon le treize janvier bii léegi nag ki ñuy sant moom moom sëñ Touba hmm. kooku war a waxtaane waaye dafa mel ni sëñ Bas bis bi day sant sëñ Touba hmm. waaye da koy jaare yin nag ci sëñ Baara Xureeja hmm. mi nga xam ne moom mooy buntam ci Sëñ Tuubaa waaye jaarale ko it ci Maam Moor Jaara borom Saam mi nga xam ne it mooy buntam ci Sëñ Tuubaa nga xam ne kon sant gi muy sant Sëñ Tuubaa kilifaam yii la ci jiital ci ñoom la ko jaaree sant Sëñ Tuubaa xam naa Sëñ Tuubaa moom nga xam ne moom la ñuy bëgg a sant insha allahu taala sëñ sëñ Omar Cissé ci la ñu dikk rek waxtaane ko moom Sëñ Tuubaa mooy kan su ko defee daal di buñ noppee nag door a dikk ci ñi nga xam ne mooy ndaw ñi ñi fii mu ne fii jamono toll ak jamono ni mu ubbi ko ak ni mu yàqoo mhm. waaye ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo dajee parce que fii mu ne daanaka boo xoolee dañ ne population Sénégal dix-huit million la mhm. dix-huit millions ñu ne treize yëpp ay ndaw lañ mhm. kon ndaw ñi bari nañ waaye nag lan moo leen soxal fi mu nekk nii boo xoolee ci àdduna bi wala boog ci jamono jii fii suñum réew àdduna bi li ñuy ëpp lantee xëy na bari na ci réew yoo xam ne boo fa demee ak mbon la ndaw ña di rawantee mm. waaye fii Sénégal boo dikkee moom alhamdulillah mm. ndax bis yi nga xam ne ay bis la woon yoo xam ne sax baaxoo nañ cee def ay foog yu demee noonu mm. léegi ndaw ñi dañ koo far transformé def ko ay bis yi sant Sëñ Tuubaa lu mel ne ay 31 lu mel ne ay 24 ak yu demee noonu kon loolu loolu tegtale na ne liggéey bi nga xam ne mag ñi liggéeyoon nañ ko ci lislaam mhm. insha allah taala suñ borom may la leen ci ndam xam naa lu jiitu loolu dañuy dikk rek mhm. fàttali ko ki nga xam ne mhm. moom la ñuy sant muy sëñ Tuubaa moom mooy kan wallaahi ndeysaan tabaarakallah tabaarakallah ah, dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin santar yàlla bu baax a baax macha allah ah, bi ñu yàlla mayee mag ñu baax alhamdulilah muy Sénégal ñu koy ndamoo tabaarakallahu alhamdulilah te comme ni mu ko waxee ah, buñ ne maam xaadimu rasul tabaarakallaahu mhm. dama naan tur bi rek doy na sëkk dëgg la sëkk ko dëgg la ndax buñ ne maam xaadimu rasul mhm. ñu ne mooy lan mooy ki nga xam ne li mu choisir mhm. mooy nekk mbindaanu sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy ki nga xam ne li mu choisir mooy liggéeyal sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam te ku liggéeyal njool màkka raw nga dëgg la waaye buñ ñu laajee itam kan mooy maam xaadimu rasul dañ naan mooy ki nga xam ne dundam lépp alquranul karim la woon barakallah mooy ki nga xam ne dafa soppoon alquranul karim ba teg ko fu mu tegul lenn mm-hmm. ba mu jaral ko mu jël alquran muy fanaan muy tëdd si kaw lalam moom muy tëdd si suuf teg alquran si kaw lalam baarakallah mm-hmm. ba dem ba mu yàgg mu ne dem naa ba alquran yëkkatil ma boppam mm-hmm. ba nga xam ne tey jii kuy xeex ak man alquran moo lay daaneel te bu la daaneelee doo mën a jugaat wallaay ndeysaan waaye ba mu demee ba xam ne yàlla la reconnaître na ko nangul na ko na mu dëkkee ak alquran Mm-hmm. na mu mel ak alquran mm-hmm. ah mu tourné waat kat mm-hmm. jaamaarloo ki nga xam ne moo di soppe borom bi tabaraka wa taala di sayidina muhammad bàyyi fatima ak umu kalsum roqaya toog zeynab maami cheikh abdul xaadir jeylaani waaye maami cheikhuna tijaani waaye nag nekk yaakaaram moom xaad maam xaadimu rasul ñu ne ko looy wax mu ne damaa xam fi yëf yi nekk moo tax ma njëkkanti jikko ñu ne ko bindal ndax wax rek doyul mu ne raamal wara nay la fadlin na lahu waaye wal fadlu inda rasulillahi xaraar la ilaha illallah nee na nit ñëpp dañoo daw njëkkante ji ngëneel mhm. ñii jaar nañ penku ñii jaar soowu ñii jaar bët saalum mhm. ñii jaar bët gànnaar mhm. man ma xam fa ngëneel nekk ma tumpang tumpangi ndax dañ naan dox dafa bari façon am na tumpang tumpang am ñaadam ñaadam am kaatar kaatar Mm-hmm. dañu naan kaatar kaatar nag doxinu baadoola la. Mm-hmm. sëñ Tuubaa bu daan dox day tumpan tumpani. tumpan tumpani wallaay ndeysaan. kaatar kaatar doxinu baadoola la. Mm-hmm. ndax baadoola weesuwul. Moussa Ndiaye sol maraakis yu weex tàll. ak garambu bu weex tàll. waaye nag di kaatar kaatar yi si mbedd yi. ba garambu bam suufu ne. maraakisam poussière. sañseem yàqu. dëgg la. ñu ne ñaadam ñaadam nag. mooy doxinu jongoma bi nga xam ne boo jàkkaarloog moom di nga xam ne kii kat fonk na boppam. bëgg na boppam respecté na boppam. waaye tumpang tumpang nag doxinu sang la. dëgg la. maam xaadimu rasuul nee na ma tumpang tumpang yi. ba dem fa ngëneel nekk ma ne ko doññeet indi teg. léegi nag lan moo des mooy ku bëgg a jot si ngëneel ñëwal seet si ma. baarakallah. ndax lan ànd naag Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo tax mu ne kat raamal wara nay la fadlin musriina lahu wal fadlu inda rasulillahi xaraar nee na mm-hmm. ngëneel kenn la ko yàlla jox mooy Seydina Muhammad mm-hmm. ndax yàlla bindul lenn pour moom waaye lépp lu mu bind da mm-hmm. ko bind pour teralee ko Seydina Muhammad dëgg la alayhi salaatu wassalaam waaye yàlla itam bind bi mu bind mbindeef yi sax message la buy wane ne njool màkkaa ngi ñëw nee na boobu laa tànn nag dëkk ak moom ànd ak moom ne nawetu dawaama zikri wa sukri xaadiman li xayril wara nihmal azinu muzayyinu nee na léegi amatuma soxla comme ne naa doññeen ngëneel indi ko te xam naa kii borom ngëneel moom rek laa amal affaire moom laa amal soxla moom laay tagg moom laay bàkk moom laay joobe moom alayhi salaatu wasalaam alayhi salaatu wassalaam kon loolu rek doy na ñu xam kan mooy bàyyi basak baara hmm. maam yi donay Seex Mbàkke hmm. mooy góor gi demoon Gabon hmm. jaari maa yombe kooku mooy Muhammad bun Abdallahi bun Habiballahi almakkiyu almaaruf bi Seex Ahmadu Bamba Mbàkke barakallah ñu ne ko ndax fa nga yem ak waa mu ne déedéet huwa nabiyu wa rasulu wal xalil huwa alhabibu wal imaamu wa dalil la ilaha illa allah nee ki yàlla solo kenn la mooy Seydina Muhammad waaye ki mu yónni tànnal ko boppam moom la mooy njol Makka Mm-hmm. waaye ki nga xam ne moom la tànn def ko copain. Mm-hmm. def ko xarit. Mm-hmm. tànnal ko boppam. ñu ne ko kan la mu ne mooy sama waa ji di Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye ñu laajaat ko mu ne ki mu tànn tam def ko muy imam jiite ñëpp. féetee kaw ñëpp. kenn la mooy Seydina Muhammad ndax moom dong moom kott la masa woo mu fekki ko mu rañaan mu jox ko lu masul jox kenn ñu ne keroog sa Seydina Muhammad bi muy jógee màkkatal mukarram malaayika yi dañ koy escorté Mikail ndeyjoor Asrafil càmmoñ Asrail nekk ci ginnaawam Jibril nekk si kanamam mhm. ndax rafiquhu ruuxuhu fi stiftahi ahli sama bi baana wastabra saru min xaadimil xadimi ndax dañ ne comme Jibril moo xam yoon yi mhm. moo xam bunt yi moom mooy jiitu mhm. Seydina Muhammad nekk si digg bi malaayika fer blanc la ñu def nee nañu koo si xool dënnam gis si laa ilaha illallah waaye mu jox la ginnaaw nga gis si muhammadu rasulullahi ñu xam ne kenn du waa ji mmh. njool màkka nan la def nee nañu bi mu jógee màkkatal mukarram mmh. jëm si baytul maqdis yéeg si alburaax malaayika yi dar ko bi ñu ko daree ba mu ñëwee ba baytul maqdis nee nañu yonent yi dañoo toog di ko xaar mmh. bi ñu ñëwee pour ñu xam ne kenn du sayidna muhammad alayhi salaatu wasalaam moo tax maam bàmba ne imaamu ndeysaan moo jiite gaa yëpp bi mu ñëwee ba yegg si mhm. yenent yi dañoo toog teeru ko mhm. mu ñëw ñu jug taxaw màggal ko mhm. mel ni koo xam ne dangay ngay liggéeyloo say mbindaan lañ lay nangulee noonu la ñu nangulee woon sayidna muhammad alayhi salaatu wassalaam nee nañu keroog aadama noddu ibrahima liqaam moussa jottali sayidna muhammad jiite leen la ilaha illallah ba moom la góor ga naan wata xaddamtali salaati fa sallu kulluhum muqtadi wa anta al imaamu ne ko gaa yëpp topp nañ sa ginnaaw dëgg la nga nekk ca kanam mhm. ñëpp nangul la mhm. kenn sañu laa bañal ndax lu mhm. tax yàlla moo ko reconnaître wallaay ndeysaan moom sayidna muhammad kon nag waxwal imaamu waaye nag moom moo am lu kenn amul ndax même ba mu jógee foofu dafa ràññaan jëm kaw asamaan bi mu paree nag da leen faa bàyyi ne leen nag léegi dama am rendez-vous ñu ne ko koo amal rendez-vous mu ne borom bi tabaraka wa taala maam Bamba kii laa dëkkal waay wallaay ndeysaan mu dëkkal jar naa dëkkal. bil jismi jaxiraa bi def tiraa jeex na <laughs> loolu la ah, mu jógewaat foofu nee nañu moom Seydina Muhammad. alayhi salaatu wa salaam jëm kaw asamaan. Mhm. ànd ak alburaax. Mm-hmm. nga dem Mouhamadul Bouchayri ne ko sarayta fii xaramin mm-hmm. laylan ilaa xaram mm-hmm. kama saral badru fii daajin min azulami naan ko wa bitta tarxaa illaa annilta manzilatan min xaabi xawsayni lam tudrak walam turami naan ko wa xaddamatka jami al anbiyaau biha wa rusi taxdima maqdumin ala xadami naan ko wa anta taxtarixu shaban tibaaxa bihim fii mawkibin kunta fii saahib alalami naan ko xatta ida lam tadaa shahwan li mustabixin min adunuwi wala marxan li mustanimi naan ko xafatta kulla maxaamin xayra mustarikin wa justa kulla faxaarin xayra musdahim naan ko wajalla miqdaaruma wulita min rutamin naan ko waxane sa idrakuma wulita min niami nekkoon nag busra lana masara al islami inna lana min al inayati ruknan xayra munhadim burratul madih waaw xanaa kon kenn du sayidna muhammad alayhi salatu wasalaam kii nag la mu yoroon la maam xaadimu rasul ne doññet indi téye la ilaha illallah kon ku si bëgg nag da ngay seeti maam xaadimu rasul baarakallah ñu ne dafa mel ni machine u xaalis bi gars yi di wëri xaalis moom dafa dem jël machine bi indi teg ah Mm-hmm. ah yaakaar naa ko mu defaralul doo am. baarakallah lay ndeysaan da <laughs> nga koy yeete <laughs> nuyoo bi am na solo nuyoo <laughs> am na solo waaye imam maa am benn remarque bu ma def Cheikh Omar si mm-hmm. ci damaa dégg nga ne huwa nabiyu mm-hmm. wa rasuul wal xalil wa huwa al habibu wal imaamu wa dalil nga xam ne juróom benni melo la ko Sëñ Tuubaa booleel ci benn wallaay moo tax bi mu paree ci loolu daf ne ko barra ahul badihu min xayri jamal walaay barra ahul badihu walaay walaay walaay min xayri jamal walaay walaay wasaanahul xuduusa an xayri kamal mm, moo tax bi nga tuddee juróom benn melo yooyu daf maa daaneel ndax bay wa ca topp bi mu ko bi mu ko tegalee juróom benn melo yi ne ko yow la ko yàlla melal yow alayhi salaatu wasalaam uh-huh. daf ne ko nag yàlla daf laa selal daf laa daf laa setal walaay walaay walaay yàlla mi nga xam ne mooy ker yi mm-hmm. moo la setal ci lu dul ab taar mm-hmm. daañu ne wasaanahul quddus an gayri kamal yàlla bi mu ko seetalee ba pare yi da koo ñoŋal mm-hmm, mm-hmm. ci lu dul ak ma ci lépp ci lépp lu ñuru ak man wallaay wallaay wasaanahul quddus an gayri kamal mm-hmm. baarakallah am na solo lool kooku nga xam ne moom la ñuy waxtaane mooy uh-huh. Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu Rasul ñu war koo sant imaam dayob sant dayob sant sant ni koy euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxee daf ne ku dul sant doomu aadama doo sant nit. wallaay wallaay wallaay. Hmm. liggéey bu rëy bi nga xam ne moom la liggéeyi li woon boroomam. Hmm. sunu boroom boole ko alayhi salaatu wa salaam. Hmm. mu jaar ci alayhi salaatu wa salaam. ba àgg ci ba àgg fi mu àgg boroomam. ko kenn mës ta àgg. liggéey bu rëy boobu moom la ñu andil moom lañ koy santee. liggéey bu rëy boobu mooy ban. mooy fi mu jaar ñëpp a ko xam. fi mu ne damay wax ne lu àdduna lu àdduna soppiku soppiku soppiku soppiku soppiku mhm. fu ne lu ne mën ngaa dégg ñu waxal ko sëñ Tuubaa photo waa ngi nii fii la ko photo woon wallaay wallaay seetalaam gaa ngi nii mhm. waaye lal bii la daan tëdd ba luy tukki doo gis doo gis ko ko génne wallaay wallaay lalu tëdduwaayam baa ngi ne doo ko mas doo mas a gis ko mhm. ko ko ko génne yaa ko wax léegi ci alxuraan la jaaree li mu ko wax li mu wax alxuraan dafa doy sëkk qiraatuha kanzi wajaahi wa aysati uniltu kaw nii ladallahi sa siddiqi jàng ko mm-hmm. mooy sama kooxoor foor mm-hmm. mooy sama koom mm-hmm. jàng ko mooy sama honneur jàng ko mooy li may yëkkati man darajay as-siddiq darajay as-siddiq ci moom alquran la ma ko yàlla maye uniltu biha kawni ladallahi sa siddiq darajay as-siddiq ci moom alquran la ma ko yàlla maye moom moo ko wax de allahu akbar uniltu bihaa kaw nii hmm. la dalaahi saa siddiqi allahu akbar xoolal xoolal waxin bi mu ko waxaat hmm. bi mu waxee ne jàng ko hmm. moo may may lii dane nag jaamu naa ko ci alquran qarubtu bihaa min munzilin kaana lii bihaa qarubtu bihaa min munzilin kaana lii bihaa wa ardaytuhu gis nga bi ma ko ci jaamoo mhm. ci alquran ba mu nangul ma jaamu gi mhm. wa ardaytuhu bi sukri bil fi'li wa nutqi mooy bi ma ko jaamoo ci mhm. alquran li may firndeel ne nangu na jaamu gi mooy moom yàlla daf maa sant wala boog dama koo sant loo ci jëf dama koo sant moom yàlla ci jëf waaye dama koo sant it ci wax wa ardaytuhu bi sukri bil fi'li wa nutqi xaritu biha aynan wali nas fa tayibat wasaltu biha lillahi sifat wa ratqi buñ ko toppee mën naa jël lépp ci émission bi waaye <laughs> asukuru maanaam sant sant googu nga xam ne moom la waa daayira nooru daari ni uh-huh. maa ngi profité nag di ziyaare mboolem waa commune Bambilor mm-hmm. ñëpp ziyaare naa ñëpp rawatina bi nga xam ne moo fa nekk moo ëmb mboolem njabooti sëti Sëñ Tuubaa yi mm-hmm. Sëñ ci kanam mm-hmm. ñoom Sëñ Mbàkke Madina Mbéy maa ngi koy ziyaare bu baax a baax a baax moom it alaaji Maam Mor Bousso <laughs> moom mi ngi doon sant Sëñ Tuubaa 30 yi weesu maa koy ziyaar bu baax baax sama xarit la sama wëllëri la euh, sama doomu bàjjan la it maa koy ziyaar bu baax baax baax xam naa euh, sëñ Mortada Mbacke yi mi ngi ndox laay sëñ Cheikh Mbacke mbëtt mm, mm. mboole waa commune Bambilor rek maa ngi ziyaar ñëpp dañuy dikkal ci sant insha allah su ko defee ma dawra dellu si waat ci musique insha allah taala <laughs> macha allah maaleykum dama ne maam Xaadimu Rasul moom dañ seen nuyoo rek. <laughs> ndax waxtaanee ko xaji fi. <laughs> xajul si une heure de temps xajul si trois heures de temps. dégg la dégg la mm, waaye nag dañ seen nuyoo rek tabaarakallaahu. Mm, mm, euh, comme ni ñu ko waxee macha allah. Mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee tam sant moom. Mm-hmm. dama naan yëpp day delluwaat si yàlla. Mm-hmm. ndax même maam Xaadimu Rasul loolu la ñëw leen sant le ma yàlla. dëgg la. ñëw leen sant le ma yàlla. dëgg la ndax yàlla moo ne la in shakartum la azidannakum la azidannakum nee na boo leen may sant mooy dolli xéewal yi. Mm-hmm. waaye wala in kafartum a azabi la shadid la shadid bu dee nag lànk ne doo leen ma sant maa ngi leen di xaar lan laa leen di xaaree mbugal laa leen di xaaree. Mm-hmm. kon wala iyaazu billah. yal nañu si yàlla musal. Mm-hmm. te dañ naan mboolem xaaji cant yëpp yàlla mooy borom. dëgg la bi nit ki sant moroomam yàlla mooy borom. bi nga xam ne moom la nit ki sant jaam yàlla mooy bi nga xam ne moom la nit ki sant yàlla yàlla mooy borom. Mhm. bi nga xam ne moom la yàlla sant boppam yàlla mooy borom. yàlla mooy borom lay kon yëpp day delluwaat si yàlla rek la kon nag lépp dañu koy dellawaat borom bi tabaaraka wa taala waaye nag ne yonent bi nee na. amul sant nit doo sant yàlla. dëgg la. Mhm. kon nag tabaarakallaahu sëñ Bas. Mhm. dama naan tabaarakallaahu yàlla nañu ko yàlla fayal. baarakallaahu ndax Njaay mu ngi koy wax sànq. ne képp ku ko wuyu si rek mhm. da nga wuyu si mhm. pour mu bëggal la yiw mhm. ndax ki nga xam ne woote na ne ñëw leen ñëw leen jël si yiw ñëw leen jël si yiw yéene na ñëpp yiw dëgg la dëgg la tabaarakallahu kon dafa yéene ñëpp yiw dëgg la comme ni maam xaadimu rasul yéene woon ñëpp yiw dëgg la dëgg la kay Mm-hmm. te yàlla day wax ne wa amma bi ni'mati rabbika mm-hmm. fa xadis fa xadis ndeysaan maanaam xéewal yi ma la jox mm-hmm. ngallaawaay na nga ko wane dëgg la ngallaawaay na nga ko fësal wallaay ndeysaan ndax doomu aadama sax bu la defaree dara boo ko santee dina am mbégte mu mu wallaay ndeysaan dina am mbégte mu mu sentir mos wallaay ndeysaan bu la defalee dara sax nga bàkk ko wan ko ne ko ah tabaarakallaahu bàkk ko boo ko bàkkee day am beneen yëg-yëg bu muy dëgg la baarakallah mhm. ndax bu ñu xoolee sax même yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ko yàlla woowee bi mu rañaanee ba fekk yàlla mhm. ba mu jàkkaarloog moom da koo bàkk mhm. yàlla tam bég delloo ko ndax dafa jàkkaarloog moom ne ko attaxiyaatu lillah azzakiyaatu lillah attayibaatu salawaatu lillah yàlla ne ko assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakaatu malaayika yi ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin dëgg la barakallah xanaa kon moom bi mu ñëwee dafa sant yàlla bàkk ko yàlla bi delloowaat ko teraanga jëm koy delloo barakallah sëñ bas nag teraanga jooju la bëgg a bokk ak ñëpp tabarakallahu mm. moo tax mu woote pour ñëpp wuy ju ko insha allahu taala barakallah imam Cheikh Omar Cissé wala oustaz Cheikh Omar Cissé am na solo lool barakallah kon sëñ bas li muy woote mooy li yàlla digle mm-hmm. wa in tauddu ma mm-hmm. laa tuxsuha mm-hmm. su ngeen bëggee compter xéewal gi leen yàlla defal tàmbalee leen ci xéewalu toog fii di wax àdduna bi di la dégg yàlla ñaata mbindeefam mbindaafoon la bind yoo xam ne fecci wut seen làmmiñ am na ci ñoo xam ne fecci na seen làmmiñ waaye dotamal na ko damm na ko ba mënuñoo wax lu nit ñi mën a dégg mm-hmm. am na ci ñoo xam ne mën nañoo ŋaaka ngeppi am na ci ñoo xam ne yëkkati seenu làmmiñ mënuñu ko mm. am na ci am na ci am na ci am na ci mm. waaye du ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sañ bas it nag daa war a sant sañ bas mm-hmm. kum àndal da war a sant sëñ Tuubaa mm-hmm. ndax li tax mu koy sant sëñ bi da da daa am wax joo xam ne dafa siiw nit ñi di ko wax waaye mm-hmm. day lu wér ba yàlla sàkkee àdduna ba léegi ku ne woote na fi ñala war a wuyu wuyu la waaye woote sama ak joo bokkal ndey ak bàyyi njëkk laa wuyu si la sëñ ci sëñ Tuubaa la njëkki wallaahi wallaahi mag joo bokkal mag la mm-hmm. jàngal la mm-hmm. ku la mag mm-hmm. jàngal la ngeen bokk ñaari wayjur nga woote mu wuyu si la mu bokk mu njëkk laa wuyu si bi mu lay bayal ab tool ci daara nga nekk di jàng alxuraan loolu ci sëñ Tuubaa la njëkk kooku mooy kan mooy maam moorum soxna jaara boroom saam dañoo nettali ci ne siiram sëñ Tuubaa bi muy nekk ci daara ji mm-hmm. moom naka jekk alxuraan la bëgg mm-hmm. suñ masaana taaj ndab su masa suñ masaana jàng ba waxtu tisbaar jot mm-hmm. ñu taaj ndab di jëfandiku dañuy sànni aliwe yi mooy li xew rek mooy li xew xewoon ci daara yi cosaan yi ku nekk ku nekk la nga yoroon da koy sànni fenn ngir daw dem jëfandiku ji boo noppee boo dikkee foo ko fekk baax na sëñ Tuubaa daan def buñ sànnee aliwe yi dem di jëfandiku moom mu des ci di dajale aliwe yi balaa dem fekk ndab la jeex. Mm-hmm. doomi bàjjee doomi nijaayam ju ñu naan Serigne Cheikhou Bousso Cheikh Omar Fouti taal lañ ko tuddee. Mm-hmm. ndeysaan mi ngi gani àdduna 1853. Mm-hmm. mi ngi génn àdduna 1912. macha allah sëñ Cheikhou Bousso. Cheikh Omar Bousso lañ koy wax. macha allah moom moo moom moo fekkee jëf ji. dem wax ko Soxna Jaara. ñoom booba Ahmadou bàmba sàll lañ koy wax ne ko Ahmadou bàmba di. li ma gis mooy waxtu wu ñuy jëfandiku moom du jëfandiku. ndax bu ñuy bu buñ sànnee alliwe yi rek mhm. moom ma nga ca toppaat di topp di di di waggar alxuraan ji te balaa dem day fekk ndab la jeex soxna jaara toolu bisaabam mhm. la woo sëñ seexu woo Mamor jaara borom saam maa ngi sëñ bas mii mhm. ñoom ñaar la woo ñu dikk mu boolee leen ab toolu bisaabu soxna jaara soxna jaara moo leen jox ab toolu bisaabam ne leen faro faro leen fii dugub dugub joo xam ne su sottee soxna si moom la daan laaxal sëriñ bi ci la daan mos kon mag ji mbokkam bokkal ndey ak baay ak doomi nijaayam ñaar ñi ñoo njëkk a volontaire bàyyil sëñ Tuubaa toog kon kooku moom mhm. ku yomb xam xamle la wallaay wallaay ndax réew mi moom fii mu ne lu fi waay déggadi déggadi déggadi déggadi <laughs> moom sëñ Tuubaa ak soxna moom dégg nga ko <laughs> sëñ Tuubaa ak soxna jaara lu waay déggadi déggadi dégg nga ko loolu du débat <laughs> du débat ren yi naa di taarif buñ ne soxna jaara ñu ne koy ab taawam ñu ne Mamor jaara moom kooku du ko ñu xam deeti ci wallaay ndeysaan xanaa wallaay taawub soxna jaara <laughs> taawub soxna jaara <laughs> lu leer loolu lu leer la wallaay kooku mooy Mamor jaara boroom saam mm-hmm. moom moo bokk ak sëñ Tuubaa lépp mm-hmm. keroog bi mu fi jógee moom la sëñ Tuubaa nee mm-hmm. moom la xam ak kuñ naan sëñ Mbàkke Kajoor ñaar ñoo xam ni wuyu ji nañ yàlla te yóbbaale wuñ yàlla bor yóbbaale wuñ doomu aadama bor mooy yóbbaale wuñ bor yóbbaale wuñ bàkkaar sëñ Tuubaa nee na Mamor Jaara la xam ci koo xam ne dund na ba faatu. yóbbulut yàq yàlla àq yóbbulut mbindeef àq. allahu akbar kooku mooy ki nga xam ne keroog bi mu faatoo sëñ Tuubaa yónni sëñ Mbàkke Buso. Mm-hmm. ne ko boo demee. Mm-hmm. séeréel mbooloo mi ne leen bi fi yónni fi aleyhi salaatu wasalaam jógee ak léegi. Mm-hmm. ku teddee moom mi ngi fiy door a bañ tiimee yónent bi ak léegi. tiimaatuñ ku gën a tedd. kii. te xoolal nag 1921 la faatu de. yónent bi kañ la fi jógee woon. Mhm. yonent bi kañ la fi jóge woon mhm. nga xam ne mhm. ay mille trois cent ans jàpp mille quatre cent ans sëñ Ba nee na ku teddee ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi koy door a tiibaat te bi mu fi jóge kii moo bokk ak sëñ Tuubaa lépp jox léppam sëñ Tuubaa nag jox léppam sëñ tubaa wanee na ci firnde ji mooy kiñ naan sëñ Baara Xureeja nga xam ne moo jur bàyyi sëñ Bas mii sëñ Tuubaa ko lépp sëñ tubaa ko tudd mhm. tuddee ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mhm. ne yonent bi moo sàkk ma tudd ko ma tuddee ko ko mhm. ci jataay bi sëñ tubaa tiim ko tari bàqara ak ali imran tifli ko ko daal di ne fàggul nañ ko cërub mag ñi yonent bi xamal na ma fii ma toog ne su ma noon a ngàbbu seta la ma ngàbbuloo ko ko mu gànt du yàq dara cib cëram ndax njool màkk njool màkk defal na ko cëram ba noppi mooy fàggul na ko cëram ba noppi kooku moo jur bàyyi sëñ bas mii. di wootee bis moo tax ma ne sëñ bas daa war a sant. Mm-hmm. moom sant rek la war a def. Mm-hmm. <laughs> Mamor Jaara moo bokk ak sëñ Tuubaa lépp. Mm-hmm. moo jur sëñ Baara Xuréje mooy way jur sëñ baar Xuréje. sëñ Baara Xuréje 1895 bi sëñ Tuubaa di dem ci géej gi. la feeñ jamono. mooy ki sëñ Tuubaa mujjee tudd. moom rek la sëñ Tuubaa mujjee tudd. dem ci géej gi ndax sëñ Tuubaa ah, maanaam xaal. xaal lay doon ci moom waxtu wu ci ne ak mm-hmm. xaal bay dikk ci moom mm-hmm. jamono bi nga xam ne moom gis na def na listixaar ci jàkkay daaru xuddoos ji ci 1895 ci weeru koor mm-hmm. fukki ñaar fukki fan ak juróom-ñaar bëccëgum ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor ci jàkkay daaru xuddoos yi mooy jàkk ji rek xam nga daaru xuddoos amul jumaa jàkka la ndax daa jegeeg jumaa ji waaye jàkka jooju fa la Sëñ Tuubaa defoon listixaar bi mu fa gisee Yonent bi alayhi salaatu salaatu wasalaam daf ne ko li ngay sàkku de sa boroom nee na mën naa nekk. Mhm. waaye daa doon cër boo xam ne képp ku ko ko mas laaj. Mhm. suñ la tegalee conditions yi doo ko remplir. wallaay yi da cee bokkoon mooy nijaayam mooy sëñ Seex Seex Omar Fuuti Taal mi ma doon wax baayam. Mhm. <laughs> da ne ko day faatu. allahu ndax yàlla da koo ruus. te da laa ñeewantu. te bu ma la tegee bu lay suñ borom tegee nattu bi dana ñaan yàlla mu teggi ko. ndax xolum juree te yàlla du ko gàntu. beneen ba mooy sa dëkk bii nga sanc muy Touba nga xam ne moom nga gën a moom moom mooy dëkk bi nga xam ne yow yaa ko taamu ñaan na ko yàlla yàlla may la ko juróom benni at rek nga fi def mm. waaye da koy génn mm. ndax bi ko sancee dangaa taalif xasida gu tudd man la bul faw say ni mm. wax yàlla mu ñagal la dëkk bi yàlla ñagal na la dëkk bi ba balal bal du fi tàkk paaka du fi dagg puso du fi jani kon faw nga génn Touba sëñ Touba ni ko ruux ak sëñ bu soobe ci yàlla la aju waaye sama génn tubaab bu ànd ak dogalu yàlla nag ci man la aju hmm. kori googee dañoo ñaari ñetti fan lañ ci teg wori hmm. ñu teg ci ñeenti fan mu sañ ci Mbàkke Bari hmm. génn na dëkk bi mu ca kori ga ñu dugg weeru tabaski am ci fukki fan ak juróom ñaar ni yaay sëñ Bousso bi muy faatu bi mu faatoo fekk booba dem waay yi yombeewul noonu bi ñu demee ba ca tamxarit wa ba tamxarit way bëgg a jeex ca la dikk di jaale si nijaayam sëñ baara maa mi sëñ bas mi ci la gane àdduna moo tax sëñ tubaa xaal bi mu ko dikkal mooy kenn la mu doon laaj yonent bi mhm. ñaari condition yi moom teggi na ndax daf ne woon yonent bi soo ñu teelee ruux gi jom ji attan na ko mm. ndax sëñ bu soowee faatu na mm. moom génn na tubaa mm. léegi nag mi ngi ci mar mar mar gi mar yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak mar gi mar a bokk ci waa ahlu badar moo tax bët ay bëtam alayhi salaatu wasalaam rek lay gis moo tax kum tudd alayhi salaatu wasalaam la la tuddee mm-hmm. ci xaal boobu la sëñ Baara Xureeje gane àdduna mm-hmm. moo tax sëñ Tuubaa tuddee ko alayhi salaatu wasalaam ay jàng kan ngeen mm-hmm. xam ngeen maanaam xaadim ak xadim ak maxdum xam ngeen li muy firi xaadim moo mooy jëwriñ yonent bi alayhi salaatu wasalaam jamono bii mën na koo nekk ndax mbindaan mii liggéey sa kër mm-hmm. tey mën naa liggéey sa kër suba mu ëpp la alal jël la ko koy liggéey kooka booba xaadim la mm-hmm. waaye mën na cee jóge suba nag mm-hmm, waaye nag xadim bi maanaa faayil kenn du ko ci rawati wallaay wallaay wallaay wallaay <laughs> sëñ tubaa xaadimu rasul la tuddoon bi mu nekk tubaa waaye nee bi man ni cëpp ci gaal gi bi an na nii qadimu zil madina de allama ni rahmanu fi safina bi an na nii qadimu zil madina bi ma ni cëpp ci gaal gi la ma yàlla déclaré ne ma laxasaay ji nekkoon ci baat bi mhm. wàcce naa ko ci ndigg bi mooy tey xamal naa la ne la mhm. dangaa doonoon xaadim mhm. waaye dootoo ci jugati tey yaay xaddiim bi na nii xaddiim bi ma maanaa faayil kon sëñ bas bu ma nee dafa war a sant dafa war a ànd ak waaye daayira nooru daayira sant nii rek la mën a demee bu dee ci côté way juróom bu jigéen way juróom bu jigéen mi ngi bokk ci usra bu ñuy wax tay ba cekkeen tay ba cekkeen sëñ bas aduna maam ju ñuy wax sëñ Màlle Seck. macha xam ngeen sëñ Tuubaa bi mu demee ci géej gi ba ñëw. <laughs> liggéey bi jeexul di 1902 dañ koy yóbbu gànnaar. Mm-hmm. xumaat bi mu nekk xumaat. Mm-hmm. góor guñ naan sëñ Màlle Seck. Mm-hmm. di doom ci sëñ Waar Seck. bokk na ci ñi sëñ Tuubaa yóbbaale woon gànnaar. yi yónnee na ko gànnaar mu ñëw Sénégal doxal ko fi yitte di delluwaat gànnaar delluwaat gànnaar ca yoonam yi muy dellu gànnaar li tax ma naan la maanaam liggéeyal. ku am ngërëmat yàlla am na solo mm-hmm. barke bi ko yàlla defaloon moom sëñ màlli moomu mm-hmm. dama ci joxe misaal rek mm-hmm. bi muy waññeeku di delluwaat gànnaar dafa jaar kokki fekk ñoom mag ñi buñ masaana jóge gànnaar ak Sénégal dañ ko daan dox de fu leen yendu fekk ñu yendu fa fu leen fanaan fekk ñu fanaan fa ku ci wàll ab yóbbal bu sa yóbbal jeexee yalwaan rek nga mën a def ndax yoruñu woon lu ne gàjj mu jóge Sénégal di dox ba yàlla dogal kokki mu yegg kokki ab yóbbalam jeex mm-hmm. te fekk yére yim solo ràpp na mm-hmm. mu dugg ci kër ne xaaral ma yalwaan fii ba xam danañ ma fi jox ay yére mm-hmm. yoo ma mën a yeesali sama yére yi bi mu demee am góor góor ga mu fa fekk daa dugg ne salaamaaleykum waaleykum salaam mu wax soxlaam góor gi ne ko foo bàyyi ko mu ne ko Touba. mu ne ko foo jëm mu ne ko gànnaar mu ne ko loo fay wuti mu ne ko Cheikh Ahmad Bamba di moo ma yónni Mm-hmm. woon Sénégal ma war a wàññeeku war a delluwaat. Mm-hmm. di sàkku ab yóbbal. Mm-hmm. mu ne ko looy sàkku mu ne ko yére yi ma sol di laa bëgg a yeesal. góor gi dem jëndal ko ay piis. génnal ko ay piis piis yu bees tàq. yu ñëwagul. yëkkati ko jox ko ko ne ko lii maa la ko jox àddiyee ka nga jëm. baat bii la ko wax yàlla na la Sëñ Tuubaa boole ci boppam. allahu baat baat bii rek la ko ñaanal yàlla na la Sëñ Tuubaa boole ci boppam mu ne ko amiin. mu génn jël piis ya jaay ko jëndee ko mburu walee ko muuraaki hmm. yóbbaale ko gànnaar bi mu demee daal di yëglu sëñ bi ne ko màlli agsi nga mu ne ko waaw mu ne ko bismillah nu saw yoon demee loo indi waaw daf ne ko li nga fàgg lu mu doon mu ne ko lii de ab yóbbal la mu ne ko noo ko amee mu nettali ko fii mu jaar ak góor gi ne ko man de maa ko wax ne ko yàlla na sëñ Tuubaa boole ci boppam sëñ Tuubaa ni dënd ba mu yàgg ne ko sàllaaw soob na saa borom de. gis na góor googee. sëñ Tuubaa bi mu dellu seen jaariñ yónnee na doomam ñu jox ko ñu jox ko sëñ Tuubaa mu am ci njaboot. Allaahu akbar. nga xam ne baat bi ko sañ Maale waxoon ne la yàlla sëñ Tuubaa boole ci boppam. sunu borom nangu na ñaan nga. daf ne ko sunu borom soob na suñu borom. Mm-hmm. góor googee doomam yun nañ ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa am ci njaboot. kon sëñ ba sant rek la war a def. lu dul sant sëñ Tuubaa rek waru koo def. ndax sëñ Tuubaa da koo lépp ci wet yëpp. Mm-hmm. kon nag. daayira bi nga ko àndal muy waa daayira nooru daari ni bi nga xam ne ñoo ko waaye mbaam sëñ Pam Ndiaye xam naa ci lañu bëgg a dikk ci daayira bi ci yan at lañ ko soos ak euh, naka lay doxee ak bis bi nga xam ne sëñ Basiiru Mbàkke mi ngi koy amal muy sant sëñ Tuubaa ngeen fas yéene koo ànd ak moom insha allahu taala bismillah kon ñun tamit comme que fi ngeen daan daanlee rek foofu lañuy ñuy tàmbalee ab sant ngeen wax ñun tamit dañuy sant yàlla buur bi suñu borom comme ni ngeen ko waxee rek. Mhm. doom ju dafay mbindeef. Mhm. doomi aadama. Mhm. ndax mënoon na ñoo def leneen. ci tànk sant tamit sang bi. Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam alayhi bu mu ñu indilee diine gii di islam. di sant tamit maam borom Touba. comme ni ngeen ko waxee. bu mu ñu xàllalee yoon bi ba mu leer. ba ñu ñeme. ñun ñii ñu soog ñu ñeme. Mm-hmm. di sant tamit sëriñ Basiiru Mbàkke bu si boppam baarakallah ba mën a liggéeyal mm-hmm. maam liggéey bi nga xam ne la la ca gënoon a metti lépp yanul nañu ko mm-hmm. tamit suñuy ñaari waajur bu ñu juddee fekk leen si yoon bi ba ñu dugal ñu si tamit nampatal ñu si tegtal ñu si xam naa ne wax si euh, wax ci euh, daara ji sax. Mhm. dinañ ci lott lool. Mhm. parce que kilifa yaa ngi sa dëkk ba. Mhm. ñaka sos ñu nga fa. nga wutulee ji rek <laughs> ñun dañoo nekk ay ndongo rek. Eh, jiital ñu nag nañu dem leen su ngeen demee rek taxawal leen. taalibe yaa ngi fa. jawriñ Ibrahima Sène mii ñu àndal. ñu Moustapha Diouf ak ñooñu. buñ fi teewoon wax lu ëpp sax luñ mën a wax si daara ja. barakallah kon lott nañ si peut-être ñun la yàlla jagleel ñu toog si rek. daara ji nag yàgg na. yàgg na fa. Mhm. yàgg na lool mënuñu mënuñu wax. Mhm. at yu mu fa def. Mhm. gannaaw loolu nag si la sëñ Basiiru Mbàkke si baaxam. tàbbi ci foofu si waaye mbaam. muy 2014. bu mu sa tàbbisee nag 2014. si la yëkkati daara ja. am na façon bu ñu doon doxalee. peut-être amuñu woon tur mais xër rek bu ñu xëroon ci murit bëri fa woon tamit. Mm-hmm. murit gi ki yoon na fa lool lool lool bu ñu ko doon lim daal ci benn wala ñaar ñett lay tomb ñoo fa ko doonoon muy eh, Baye Mari Sey mm-hmm. Baye Mbay Diop mm-hmm. ak Baye Ndooy Aline Ndooy ndeysaan ñett ñooñu ñoo fa nekkoon am ni ñu ko doon defee nag da nga xamante ne wa murit ba daal ki yoon na fa loon lool lool lool ñemewuñ ko woon sax yëkkati cant gi ñuy doon wax nii ñeme ko woon ko sax yëkkati ak naka nañ ko doon defee ci ay kafe liggéey yàlla noonu lay demee ci ay café badaal islaamu qariban <laughs> ci ab ay café yi ñu doon bu bés bi jotoon ay kafe yi ñuy sëddale mm-hmm. kese def ko te ñu koy def tamit ci biir kër ndeysaan ndeysaan ci biir kër hmm, ak niñ koy defee hmm. woote woon fa sax ne man murit laa sax jafe woon na fa hmm. xëy rek def nii sol kii rek ñu ne la yow murit nga rek nga ne man murit laa sax xawoon na fa xawoon na fa kii kon ñooñu tamit ñu ngi di sant bu baax bu ñu xalalee yoon bi ak seen njaboot gu nekk foofu taxawu ko tamit bañ fekk leen fa ñun liggéey moo ñu fa indi barakallah mais bu ñu ñëwee sëñ Basiiru fekk ñu fa boole ñu si yoon bi si liggéey bi ngir dimbale ñu rek nag. ngir hmm. dimbale ñu rek. boole ñu si yool bi. ndeysaan waaw ndax euh, mënoon na ko mënoon na koy defee nan ñun tamit. Hmm. ñëw fekk si ko si. Hmm. parce que ñun tamit tooguñ fëpp su. mbakke euh, mbakke nekk. ñun ñuy taalibe. ñun waruñ koo xaar sax ñun ñoo war a daw fekk ji ko. dëgg la ndeysaan. mais biñ ko fekk jee nag mu boole ñu si. lépp lu ñuy def. daf ñuy moom day wax rek. ñu topp ca. ndeysaan presque lépp mooy xel ba mooy lépp daal. dëgg la ñun daal yenn yu sew sewaan yi rek la ñu la ñu la ñu la ñu la ñu yenn daal. ndeysaan ndeysaan kon gannaaw moom bu ñu ko santee nag si 2014. Mm-hmm. mu jël daara jooju yóbbu ko. Mm-hmm. xalif général des mourides. Mm-hmm. mu tuddee leen Nuuru Daarayni. Nuuru Daarayni gannaaw boobu nag. ñuy waajal cant. ci gannaaw boobu rek lañ commencé cant. comme ni ñuy waxee cant nu mu fa demee. gannaaw cant boobu nag biñ koy njëkk a defee tamit. biñ koy njëkk a def tamit. mën naa ndeysaan kon sant rek ñu ngi mm. santaat tamit bu baax a baax baarakallah te ganaar la ñu ndëkkee ndeysaan mais léegi tabaarakallah alhamdulilah <laughs> yàlla tabaarakallah ñu ngi sant bu baax tamit euh, ñu ñuy kattanal ñu ñuy dooleel muy nongo yi yëkkati seen ñakk di ko ci mm. teg mm-hmm. ah, muy kilifa yi fa nekk mm-hmm. xataluñ ñu benn yoon baarakallah muy chef de village yi fa nekk mm-hmm. muy chef de village wayambaam chef de village mbéy chef de village ngënduf parce que ñooñu ñëpp benn askan gi la. ndeysaan. waaye yombalal nañu ko. Mm-hmm. ak dëkkandoo yu fa nekk. Mm-hmm. ñu nekk fa ak suñuy dëkkandoo. Mm-hmm. mais xataluñu benn yoon. barakallah xataluñu benn yoon. barakallah du ñu jàppale te bu ñuy woote si bés bi ñoom ñëppay ñëw taxaw si ñëppay ñëw taxaw si. ndeysaan. parce que euh, sëñ Basiru Mbàkke si baaxam. amul xaj ak seen. ñëpp la boole. ñëpp lay woo. ba si invitation yi def dañuy tiire tiire tiire ba mu ne diw diw am na. diw am na mm-hmm. ñu tiire jiwaat ba léegi ba démb démb si géej bi ñuy tiirewaat pour joxe jiwaat ndeysaan kon ci mbaaxam bugg nañu boole comme ustaas Omar nu ko waxee léegi mm-hmm. bëgg na boole ñëpp ci xiiw bi. ndeysaan ndeysaan ku nekk def si ñàkkam wala def si def si def si def si dërëmam. am na solo taal xam naa. baarakallah <laughs> am na solo am na solo am na solo. sëñ tam xam naa. Mhm. xam naa ci mujj gi bu ñuy tàggoo rek. waaw waaw incha allah am na solo lool am na solo lool xam naa kon. Euh, ni nga ko waxee am na solo lool mooy sëñ Bass liggéey bi fi mu ko yóbbu. Mhm. Euh, wax dëgg yàlla. ndax loolu liggéey bu am solo am solo am solo la dikk ci gox. Mhm. fekk fa ab lim bu néew. Mm-hmm. buñ naan ñii kat sëñ Tuubaa seen sëriñ <laughs> waaye nag néew guñ néew tax na. Mm-hmm. ñemewuñ koo yëkkati. Mm-hmm. nga dikk yëkkati liggéey bi sëñ Tuubaa moo yëkkati kalimatu laa ilaaha illallaah. wallaahi wallaahi moo yëkkati kalimatu laa ilaaha ndax. lépp loo dégg ñu di la ko wax ne la sëñ Tuubaa ko def natt ko ci teg ko ci misaanu sharia wallaay wallaay wallaay su ko yéesee dara yi sëñ Tuubaa nekku ci su ko matee sëkk lépp Sëñ Tuubaa la tey moo waxoon ne falaa tuaadu mhm. man raaytum faa mhm. yuxriju laa ilaha illa allah képp ku baatam képp ku làmmiñam di génne laa ilaha illa rek jàpp leen ne seen bokk la waaye du seenum noonu mhm. bu leen noonoo képp koo xam ne gémmiñam mi ngi génne baatu laa ilaha illa allah xam nga kooku kon kooku ko moom fi mu nekkoon fu leer la tey wax dëgg yàlla tasaare lislaam rek ko taxoon a jug liggéey boobu nag sëñ Bass def ci mooy kan ni mm-hmm. dikk ci dëkk mm-hmm. fekk fa liggéey bi lislaam mm-hmm. ci daaray alxuraan la ko tàmbalee yaakaar naa ba léegi daara daara jàngee daara man yaakaar naa fekk naa ko fa ay ati ati ati ati ati boo gisee ma man cee wax man dama cee mat seede dama ko faa fekk ay yooni yooni yooni yooni yoon kon man man naa ci seede maanaam liggéey bi fi mu ko yóbbu dafa kawe njort maanaam liggéey sëñ tubaa bi fi mu ko yóbbu dafa kawe njort mhm. tey wax dëgg fi mu ne ñi sëñ tubaa ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootuk sëñ tubaa gi mhm. dëgg la ñu dajaloo ca dëkk ba bariwul njariñ mhm. lii sëñ bas def nii daal man moom laa gëm te moom laa naw mooy nañ génn tasaare liggéey bi xamal leen ne leen yàlla jox na senegal ku mel ni kii ngeen gis muy sëñ tubaa xaadimu rasul ndax biir dëkk ba moom xam leeti fa sëñ tubaa daanaka waaw donte sax duma de ne bariwul njariñ waaye nag mën naa ne ñoom ñi ngi xëy di dem ci am na ci ñoo xam ne bis bu yàlla sàkk waxtu yu juróom ca jumaam ja lañ koy jullee di dem ca xabru ba mm-hmm. di diglu ñuy wax mm-hmm. léegi nag mu def ay ruqulqaan yoo xam ne dafa ja dafa ja dafa dafa dafa mm-hmm. dafa jara dafa jara mottali ah. moo tax lii sëñ bas ndef nii am na solo lool léeg-léeg ma tooñee ko ko nekk léeg-léeg nga dégg ku defu communiqué am daan ne ci ndigalu mm. ko dégg ko mm. waaye sëñ Bass moom bu mm. tax ma wax ko mooy dama cee mat seede daa ànd njaboot gi ànd naa njaboot gi dem ba ci sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa tuddee daayira bi Nooru Daarayni yaakaar naa daaw sëñ Muntaxa doomam la yónni sëñ Moussa ñoom maa ngi koy ziyaare bu baax a baax baax moom it kon sëñ Bass moom bu ne ci ndigalul sëñ Muntaxa lay sante sëñ Muntaxa ko ko digal léeg-léeg nag léeg-léeg nag kenn toog fee moom jékki-jékki dafa communiqué ni si ndigal la sëñ Muntaxa te sëñ Muntaxa yëgu tim donte moo ko yilif lépp lu ñu ciy lu baax moom moo ko digle loolu it ñoo ngi ciy sant bu baax a baax a baax a baax xam daa ni waxtu yi nag mi ngi ñuy bëgg a dab xam naa daal da ñuy tënkal ci maanaam ban soññee nga mën a ci ndaw ñi nga xam ne ñooy ndaw yi lislaam yi ak ban taxawaay lañ war a am ci seenu dund ngir seenu dund bañ sànku mm-hmm. muy jàngale mi nga xam ne moom la maam Seexul Xadiim doon jàngale mm-hmm. ci wàllu yar ak yu demee noonu. Mm-hmm. incha allahu taala xam naa mooy ànd ak tàggoo bi. Mm-hmm, su ko defee sëñ Ndiaye dal di dikk ci programme bi moom it ñu daal di tàggoo wala daal di yëkkati jërëjëf incha allahu taala. Mm-hmm. bisimilah ah tabaarakallahu xam naa am na solo lool. <laughs> béggati nañu tey moom dama naan plateau bi tabaarakallahu dafa riche. waaw ah, dafa riche waaye nag lépp suñu mag ñi la rek macha allah. alhamdulilah comme ni nga ko waxee rek ñoom kat dañoo sàmmoon seen ndaw. defoon la ñu war a def mm-hmm. ba tax ñu mën a fi ñu toll mm-hmm. te comme ni ko waxee ndaw bu nekk war na am taxawaay si mm-hmm. diine ndax boo demee sax borom ibnu ashir loolu la wax ne awalu waajibin ala man kullifa mumakkanan min nadarin an yaarifa allaha wa rasulahu bi shifaati mimma alayhi nasaba al ayati wa bi shartin aqli maa buluuxi bi dammin aw xamlin aw bi maniin aw bi inbaati shaar aw bi samani aw dhar maanaam boo nekkee ndaw première li lay njëkk a war mooy fexe ba xam kan mooy sa borom. Mm-hmm. ndax faarifuni qabla an taabudun. wallaay ndeysaan. li maam mm-hmm. Xaadimu Rasul ne laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi Mm-hmm. maanaam li ngeen war a yitteewu mooy xam-xam ndax loo xamul doo xam noo koy pratiquer dëgg la ndax wala yaxillu an yafaala fi'lan ataa ya'lamu hukm allah fi waaye wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil mutabi'ina li sunnati dëgg la dëgg la nee na du dagan ngay xam say farata mm-hmm. ak say mm-hmm. farata mooy lii la yàlla sant boo ko defee mu fay la boo ko deful mu duma la sunna mooy li sayyidina muhammad nekkoon wa ma ataakum rasulu fa xudu faxudu wa ma nahakum anu fantahu mustahab mooy lim nekkoon bëgg ko si jàppale kon nañ ko si jàppale hmm. waaye mandu mooy lim daan def léeg-léeg léeg-léeg mu bàyyi hmm. Hmm. kon ku mën defal ku mënul tam tënkuñu la dëgg la yooyu nag war na jullit bu nekk nga xam ko première bi nag mooy nga xam yàlla yàlla nag ni nga koy xamee am na ñu ne sax si sifaat la yi mu bind waaye na nga xam naka nga koy jaamoo waaye nag li ñu tardeel ñun léegi mooy dañuy topp àddina ba fàtte yàlla dëgg la ñun ndaw léegi dañuy topp àddina ba fàtte yàlla. day am hmm. dañuy topp suñu bakkentam. Hmm. ba fàtte li ñu yàlla digal. Hmm. te war nafsu kat tifli in tahmilhu sab'an ala yawmin kon nañu moytu bakkan. te topp li yàlla digle. waaye itam defar suñu ruux mag ñi noonu lañ daan def. maam Xaadimu Rasuul. noonu la daan def. ndax mag ñi dañuy defar sa ruuxu. sol si yow xam-xam. nga xam ne da ngay nekk insaanul kaamil. ku mat sëkk. boo xamee yàlla nag moo ngi mel ni tey jii. Mm-hmm. ñu ne kat Moussa Ndiaye wala Pape Ndiaye dafa bëgg a dawal oto te jàngu ko. Mm-hmm. mënta dina dina sànku ñoo ko toog ko topp. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. <laughs> waaye nag doo nga am doo doonub sëriñam mm-hmm. même bu fekkee dem nga sax ba nga xam ne xaw nga aase sax ba mu tax nga rëy ne dama war a sàkku xam-xam pour xam nan laay jaamu yàlla ak nan laa koy topp minal mahdi ilal lahdi jeex na kon fi nga juddoo ba fi ngay faatoo da fa war a saako xam-xam dëgg la moom la borom taalim ne wakkun mustafidan kullu yawmin ziyadatin min alami hmm. na hmm. hmm. mi balaa muy ne dëgg la day jaaxal nit ñi te fekk sax waaye nag léegi aduna la jiital maanaam musique bu waali génn dinañ fexe ba maîtriser ko xam la muy wax ak na mu koy tëggeeg yëpp ya ca aju mm-hmm. waaye nag la nga xam ne mooy suñuy faratay julli du ñu fexe ba xam ko mm-hmm. di tëñëx tëñëxi rek. dëgg la kon nag première mooy nañu xam mm-hmm. ñuy farata. suñuy sunna mustahab ak mandub. xam tam fu ñuy teg suñu tànk. dëgg la beneen bi tam bañ di sikki sàkk. est-ce que dëgg la xam nga am na ñoo xam ne dañuy bëgg a topp diine mais dañuy dañuy sikki saaka est diine dëgg la mm-hmm. est yàlla lim ñuy wax ne ëllëg dinañu dekkal dëgg la ëllëg mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi nekk di sikki saaka loolu ba mooy tax bakkan ne leen noono loolu ay wax la rek su dee jeex na nga ne nag naa dund ndax dund lañ fi am nañ dund si àdduna bi yàlla ne déedéet ndax boo xoolee sax waa màkkatal mu karam defoon nañ ko yonent bi mooy suratul na mm-hmm. laajante si xew-xew bu màgg boobu mm. ba nga xam ne waa màkk dañ see wuute mu ne mm. xaar leen di ngeen xam mooy kallaa sa yaalamuun xaar leen di ngeen suuf si nekkul mu tàlli kan moo ko tàllal mu mm-hmm. ne xamuñu ko mu ne leen yàlla la wal jibaala awtaada mu ne leen suuf si am na lu ko téye muy montagne yi est xam ngeen ku téye ñu ne déedéet mu ne yàlla mm-hmm. wa xalaqnaakum lakum azwaaja xam ngeen ku leen bind ngeen di góor ak jigéen ñu ne ko déedéet mu ne yàlla benee naa fooxum sabaan shidaada ku yëkkati juróom-ñaari asamaan yi ñu ne ko xamuñu ko mu ne yàlla wa jaalna siraajan wa haaja ku si def lampe bii leeral ñu ne ko xamuñu ko mu ne yàlla wa hmm. anzalna minal muhsiraati maan sajjaaja ku si wàccee ndox te kenn fayu facture ñu ne ko xamuñu ko mu yàlla hmm. mu ne wa jaalna layla libaasa ñu def guddi gi muy sutura wa jaalna nahaara maasa ba barakallah am na solo <laughs> dund ñu ne ñu ne ko est-ce mu laaj leen est xam ngeen kan ñu ne ko xamuñu ko mu ne yàlla la kon nag inna yowmal fasli kaana miiqaata ki def loolu nag bu ne la bis dina jot nga ñëw dajeeg man amul wérante bu sikki sàkka <laughs> amul wérante ndax li mu def amul si kenn koo xam ne mënal na ko boppam <laughs> moo tax jaam bi bu xamee li mu doon <laughs> eh. ak ki mu doon dina teel a jëm ca yàlla eh. waaye nag boo jëmee sa yàlla sa morom yi dañ lay kaañoo comme li ñuy wax mm-hmm. inna alladina ajramu kaanu min alladina amanu yadxakuun wa ida maru bihim yataxaamasuun wa ida nqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa ida raawhum qaalu inna haulaai labdaalu wa maa ursilu alayhim xaafidin falyawma alladina amanu min alkuffar yadxakuun ala al araiki yanzuruun hal suyibal kuffar maa kaanu yafalun Moussa Ndiaye day sol garam bu baax di dox jë jëm programme romb ay moromam ñu sol seen i bodi takk seen i jean ne kii xamul lu xew kii branché wul yàlla ne comprendre naa dama leen di bàyyi ba ëllëg ma fay leen ngeen di gis te dañuy am doo leen ko am te doo leen ko mën a am amati mu hmm. yowmal xiyaab ëllëg nga romb ñu wokkante naa xoola sa waa ji xanaa yëgul hmm. wu fekk yow yaa ngi branché wu si yàlla bu leen faale continuer nga branché wu si yàlla tey jii dañ koy dénk ndaw ñi ne ndaw luy dëgmal yàlla bu mu hmm. gestu bu mu xool àddina bu mu xool ña nga ne ña ngay wokkante bu mu xool koy jëw bu mu xool ña koy xeelu na dëgmal fi mu jëm xam ne foofu la yàlla nee na bu ëllëgee yowmal xiyaam ñoom ñooñu dinaa leen dugal bil aljanna tegal leen ay xéewal ñuy xéewalu ñi nga xam ne dañ leen doon reetaan si àdduna fal yawma alladina amanu min al kuffar yadxakuun ala al araiki yanzuruun ñu tëdd seen laal ya ah di tëdd seen njoowaan yi di jaayu di jaayu xéewal yi di ñëw ñu teg xéewal yi ginaar yeeg lépp lu ñu soxla mu ñëw ñu ubbi bunt bi bu ñu ubbee bunt bi ñoom ñi leen doon balak si àdduna jàkkaarlook ñoom xam ne ñii si xéewal lañ nekk ñuy daw di ñëw bu ñu ñëw yàlla ne malaayka yi tëjaatal leen ma barrière bi bu ñu tëjaatee ñu mbëkk damm seeni loxo damm seeni bopp toj yàlla bàyyi leen fa ba mu yàgg mu ubbi waat ñu jàkkaarloo xéewal gi nar a ñëw yàlla ne malaayka yi tëjaat leen ñu tëjaat mu yàgg yàlla nee ne ko faaru maakaan yafaal ñu daane <laughs> ci istifham bi la ñu daane am na solo lool sëñ euh, Omar Cissé mm-hmm. am na solo lool baarakallah mm-hmm. dénkaan boobu nga dénkaan am na solo lool mm-hmm. mooy ndaw luy dëgmal yàlla dafa war a teg kanamam dafa war a teg yàlla rek ci kanamam ndax euh, léegi maa ngi la koy wax ni euh, jamono dafa jaxasoo te it liñ naan jeunesse jeunesse liñ naan ak ndaw yonent ci aleyhi salaatu wasalaam bokk na ci juróom yam dénkaane woon njëkk juróom mooy boo doonee ndaw sag ndaw gaawal jox ko yàlla bala laa màggata a maa ngi la ciy jox misaal léegi ne fii mu ne Cheikh Ibrahima Niass Baye dama ko naw li tax ma koy tudd fu ma toll mooy Cheikh Ibrahima Niass fuñ ko tuddee mag ñi la ñu tudd da ngay dégg ñu ne Sëñ Tuubaa ne maam Seydi Hadj Malick radiallahu anhu mhm. ne maam maam Amari Ndaak Seck mhm. bu Canaba tudd sañ bu sëñ Njaasaan mhm. dañ ciy teg Cheikh Ibrahima Niass te moo ne bokku ñoo moom jamono bu dee maam bu dee damaa jëlalee maam Amari Ndaak Seck ak sëñ Canaba waaye Cheikh Ahmad Bamba ak maam Seydi Hadj Malick mii nga xam ne Cheikh Ahmad Bamba 53 la maam Seydi Hadj Malick 55 la ñoom rek mageen nañ bàyyi ñas lu ma juróom fukki at ak nangam. ba mhm. juróom fukki lu jege juróom fukki at. Mhm. nga xam ne seeni taaw. Mhm. ñoom ak Cheikh Ibrahima Niass mii. wallaay wallaay te fuñ tuddee mag ñi tudd ko. looloo tax ma looloo tax ma ma koy apprécier fu ma toll. li tax ma ciy joxe misaal mooy. yitte ji ko yàlla jox. maanaam yitte ji ko yàlla jox ci. ay atam yu teel mu ma mu am volonté sanc dëkk mm-hmm. taalif téere mm-hmm. man yooyu laay nawee ndaw borom atayfu shara jama ni goon <laughs> ni goon xayra naasi li sayri sama baarakallah waxal ya atura inni uniqu ah, allah borom yitte la woon baarakallah yitteem ju kaw yi jooju nag toujours ci laay joxe misaal ci mm-hmm. léeg-léeg da ngay gis ñun koo xam ne ñun fi mu nekk nii ci suñuy at lu mu néew néew néew romb nañ weer jëm ñeen fukk wala boog ñu romb ñeen fukk léegi te ñun luñ defagul luñ defagum ndax taalif nañuy téere mm-hmm. ndax sanc nañuy dëkk mm-hmm. ndax ndax ndax ndax mm-hmm. léegi suñuy at la ñuy jël xayma ko ci mag ñi at yi ñu amoon ak liñ ci réalisé ci jamono bañ koy am Cheikh Ibrahima Niass bi muy am ñeen fukki at lu mu néew néew taalif na ñeen fukki téere moom lu lu mu taali lu na fukki téere bi muy am ñeen fukki at léegi ñun suñu ñeen fukki at ndax taalif nañ luñ taalif luñ fi def looloo tax toujours may insister ci loolu ci ne. Mhm. ak ndaw nañ ko teel a kar. Mhm. bala ko adduna yóbbu. ndax kat bis a ngi ñëw. Mhm. nga naan ay suma yëgoon. te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li mu wax dafa leer. minal di la wax. xoolal waxut li ko dalee ci ndaw de ci laytaay la ko tàmbalee laytaay. al mahdi mooy laytaay. ilal laxd hmm. ba ci bàmmeel hmm. Hmm. xool ñaar yonent bi aleyhi salaatu wa tudd waxut bi nga juddoo de ba baa ngay faatu daane bi ngay tegoo ci laytaay ba baa ngay tegu ci kuusu bàmmeel xam-xam du wees kon nañ wut xam-xam waaye te jaamoo ko yàlla waaye te liggéeyalee ko suñum réew am na solo loolu Cheikh Omar Cissé ñu ngi lay sant bu baax la baax te di lay gërëm sëñ Bass mii yaakaar naa ne kenn la ci ndaw ñooñu kenn la ci ñooñu nga xam ne am nañu yéene àggale liggéey suñu borom bi fu kawee njort ñi ngi ñi ngi ziyaare bu baax a baax sëñ Baara Mbàkke mm-hmm. muy xalifa sëñ Seex Baara mm-hmm. nga xam ne mooy mag yi sëñ Bas mm-hmm. ak mboolem njabootu sëñ Seex Baara xuree ji gi yëpp ñu ngi leen di ziyaare baax a xam naa ñu ngi leen di séntu sax ci bis bi ne daanañ ñëw xam naa <laughs> sëñ euh, sëñ Pam Ndiaye xam naa da ngay dikkaat ci kàddu yi ngay mujjee ci daayira bi soññe bi ngay soññee ak bës bi insha allahu taala programme bi naka lay demee su ko defee ñu daal di yëkkati jotaay bi insha allahu taala kon dama leen di damay tàmbalee rek fi ma leen fekk. <laughs> muy si ndaw ñooñu liggéeyum ndaw yooyu. Mm-hmm. taxawaayu ndaw yi si mm-hmm. diine gi. Mm-hmm. yéen a ko wax. maam borom Touba dafa bàyyi sacrifier jeunesse maam lépp. maam borom maam maam. Mor Diarra Bousso maam Diarra Bousso. maam Diarra Bousso. lu tax ñuy naan maam pourtant atam. 33 ans ah, donc la dund. pourtant atam. mu laa xasee bu am solo. Ah, mu wa am benn bës moom ah. képp jigéen bu am bés. Hmm. bi ñuy màggal am dëkk am hmm. lépp liggéey moom ko waral. te atam néew na lool. doguma la maa ngi jéggalu. <laughs> maanaam daf ma laal. maanaam dafa mel ni courant bi daf ma maas. dafa ko <laughs> dama koy wax benn bis. Ah. at mu jot damay jugee Dakar dem siyaari ji. Mhm. keroog bi ma fay mujj. Mhm. dafa mbokk mu ma àndal. damaa dem yàlla xam na ni. xaal la ma def. ndax dama ne ko man li ma jaaxal mooy. Mhm. poroxaan fa mu nekk. ak fii Dakar. soo xoolee boo defee aller retour da ngay def 500 kilomètres. waaw. waaw mm-hmm. ah? <laughs> fii ak Porokhane boo defee aller retour yaa ngi def cinq cent kilomètres mm-hmm. te man li ma ci jaaxal mooy moo xam muy màggal moo xam du màggal heure boo fa demee fekk fa nit ñi koy fii mu ne dangaa laal fu am solo <laughs> parce que maam Jaara Buso mii ñoom dañoo egg si sax ñi koy dessiné am mm-hmm. maire bu màgget lañ ñooy dessiné te alors que 33 ans la xool ci suñu soxna yii ku ci am 33 ans. Ah, ah, ah. loolu mooy li ñoom Moussa Ndiaye di wax ne aux ans bien être la valeur n'attend nombre des années. effectivement continué continué macha xoolee yonent bi sax noonu la mel. alayhi salaatu wasalaam sabaabu am shawrul karam xoolal ndax min xabli aamayni jafran kaana za adaban. nee nañu mu am deux ans rek nekk na jàmbaar. gis nga baarakallah. macha allah looloo tax mu am solo. kon kon da laal ko am soxna moo tax faaw ñu dugg. kon <laughs> kon sëñ sëñ Basirou. Eh, kon ñu eh. koy sant bu baax moom tamit. mën nañ ne euh, si Zaire. Mhm. atam demeewul noonu. ay at bari yooyu mhm. kon topp na. Mhm. tànku maamam yi. gëm naa ne maamam yi bu ñu ko fi fekkoon. du bokk ñi nga xamante ne. dañuy sopp doxalin wala dañuy làqatu wala dinañ leen dinañ dana am lu ñu kii. dëgg la dëgg la. ku ñu war a dooleel la ku ñu war a jàppaleel la parce que mm-hmm. ñëwoon ci tund boobu metti na woon torop mm-hmm. liggéeyal fa l'islam metti woon na torop mm-hmm. keroog dañu dem sama bés fële bés bu ma doon dem weti euh, deqale deqale deqale waaw fi ma nee deqale rek ñu ne Maam Mor dëgg la mu ne mën nañ yegg si bërëb ba bu ñu yeggee si bërëb ba defal ñu fa historique ba nga xamante ne dolli nañu bu baax a baax parce que ñun noor rek la ñuy wut dëgg la te mu ngi ñu moom mu ngi ñu koy defal dëgg mu ngi ñuy gindi mu ngi ñuy tette mu ngi nu mu mun a mun a war a mun a defeek ndaw rek mu ngi koy defeek ñun. baarakallah. maanaam at bi demeewul noonu. mais xam-xam bi macha allah. dëgg la mu ñuy defal historique nañu xool leen. Mhm. xool nu ñuy defalee taarix bi xoolal. la mu ne ñu maam Jaara Buso fan mhm. fan la tëdd. ñu xoolal Poroxaan. dëgg la ndeysaan mu ne xoolal maam Moor. Anta Sali fu mu tëdd. dëgg la dëgg la. mu ne ma xoolal distance bi. dëgg la dëgg la xoolal maam borom Touba. dëgg la liggéeyal yàlla rek moo leen ñor. dëgg la lay day sant mais tamit ñu ngi wax ne ndaw ñi tamit. Mhm. léegi ñi mel ni sëñ Bass. ñu ngi mhm. leen di xiir si jaamu bi dëgg la dëgg la dañoo war a bari ndaw ñi léegi ñu si bari. dañoo war a bari suñu kalaas kalaas yi. Mhm. commencé nañu soppi doxalin. teg pantalon yeeg jiin yi. bàyyi booy disco bi. commencé léegi bu 31 jotee 24. Mhm. xalaatuñu sax bés yooyu noonu ñuy ñuy ñuy ñuy ñi nga xamante ne ñun moomuñ ko dootuñu bés. askan mhm. moomuñ ko. Mhm. ñu siy tudd yàlla. ba 31 bi moo ci mujj moom tamit mu siy fekk ndaw ñi di leen di dooleel. Oh, day nag dagg nelawam ak yitteem yépp ba si 31 bi moo ci mujj. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ba nangam heure ñu soogay jógee foofu tëdd ngir doole ndaw ñooñu rek. muy taw feex soxal rek. kon macha allah daal kon foofu la tàmbalee di leen wax ni. Mhm. kon liggéey bii muy liggéeyal maamam fee. Mhm. si Touba Wayembam. Mhm. bàyyiwu si kenn. ñëpp la si woo ndaw mag góor jigéen. ñëpp. mu ngi koy tàmbalee nag comme que bunt bi réew mi moom. président de la république. moo ñu moo ñu yilif moo ñu yilif yàlla moo ko fi mm. teg mm. mu ngi ko siy woo lu si nekk war na yëg ak yooyu mais dañ ko siy woo ñu ngi ko siy woo di si woo gouvernement bi yëpp mm. di si woo commune bu Bambilor di si woo commune bu euh, maire Ngagne Diop muy premier magistrat bu commune bu Bambilor di si woo chef de village yëpp chef de village euh, Madiaw Say chef de village Ablaye Ndiaye ak chef de village bu euh, chef de village Jibril Maal bu mm-hmm. Ngenduf mm-hmm. moom programme bi bu ñu xëyee lañ koy commencé léegi programme bi nag bu ñu xëyee mm-hmm. lañ koy tàmbali am na ñoo xamante ne sax si seen xër danañ fa ñëw ñaari fan ndax bés bi nu mu nu mu toll kon programme bu ñu xëyee lañ koy tàmbali wàccee ay alxuraanul karim wàccee ay ay ay kaamil léegi nag ajjuma bi programme bi samedi lay tombé le 13 janvier mais ajjuma bi le 12 ñu ngi ko euh, jagleel maam Cheikh Rafal. guddi maam Cheikh maam Cheikh Rafal parce que mooy bun mooy buntu bi wala dikrullahi akbar ndax mooy buntu <laughs> wallahu ya'lam ma bu ñu xëyee ajjuma bi. Mm-hmm. wàccee ay kaamil. Mm-hmm. bu ñu paree si wàcce kaamil bi. nekk si def pause. nekk si liggéeyub togg yeeg. Mm-hmm. bu ñu paree si togg yi. jëm si bu ñu paree si bernde yeeg yooyu noonu. Mm-hmm. bu ngoon seen ak ay 19 mm-hmm. ñu dugg si 19h 20h gannaaw timis ñu dugg si baas bi. baarakallah bu ñu duggee si baas yi nag dina am ñi nga xamante ne ñu ngi si xasida yi. bu ñu paree dugal euh, dugal euh, invité. wala dugal ki nga xamante ne moom lañ dara jaal comme parents yeeg ñooñu. bu ñu paree. jàngkati sëñ Ndiassé mm. alxuraan mm. moom mooy jàng mm. jàng bi conférencier bi muy sëñ Xaadim sëñ Xaadim Ndiaye tasawuf tasawuf donc parrain yi di Cheikh Matar Diop hmm. donc di si woo ñëpp daal di si woo ñëpp euh, mbooleem mbooleem jullit daal di si woo mbooleem taalibi waaw mm-hmm. di si moo waa waa waa waa ñàgga tawféex hmm. sokaabeek di hmm. si woo bënn ba baarakallah di si woo waa euh, sangalkam hmm. déen mbéy wayambaam génduk bàyyiwuñ kenn daal ku lim daal ngay tuur noflaay su ma nee njuluf yëpp daal jullit yëpp rek su ma nee njuluf <laughs> am na solo ñëpp daal bàyyiwuma kenn xam naa ne dañoo mhm. dëgg la dëgg la xam naa su ma mhm. juumee rek ngeen xam ne si sama sama kii la ak euh, xat-xataay bi mais su kii rek am na solo am na solo baarakallah am na solo lool am na solo lool mhm. euh, sëñ Pape Ndiaye ni nga ko tënkee rek kon bisub alxuraan la bisub sant la mm-hmm. sant yàlla alxuraan a ciy jiitu mm-hmm. salaatu ala nabi istixfaar mm-hmm. julli ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mooy salaatu ala nabi te jaaree ko ci xasaay di maam si Ahmadu Bamba yi loolu moom sëñ Saliou dafa am ko mas a dikk ci moom ne ko sëñ bi bis yi daal damaa gis ne daa bari ndax Mbàkke doo woo waa dëkk kilifa yi nga waxtaan ak ñoom màggal yi ñu di ko def benn bis muy bisu màggal Tuubaa gi sëñ Saliou ne ko hmm, sa la bis yi luñ ciy def ma ne ko ah <laughs> danañ jënd ay nag de moom bu ñu xëyee danañ jàng alxuraan danañ berne. Eh. su ngoon jotee danañ fanaane jàng xasaay. xasaay hmm. ni ko mun sa law loolu mën naa bis bu ne. wallaay wallaay wallaay wallaay. joxe hmm. ak jàngal ak zikrullah. Hmm. mën naa am bis bu waaw mën naa am bis bu ne. kon loolu la sëñ Bass. Mm-hmm. ànd ak waa daaira nooru daar yi ni fa yéene koo jëmmal mm-hmm. mu doon dimanche le treize euh, mm-hmm. samedi le treize janvier insha allahu taala yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm xam naa euh, tey ki ñu doon waxtaan yi mooy sëñ Touba waaye njabootam gi nga xam ne ñoo nekk fii Dakar it taxawal liggéey bi nga xam ne moom mooy liggéeyu sëñ Touba bi mooy màggaluk euh, Touba waaye mbaam muy waa daayira nooru daayira ni sëñ Basiiru Mbàkke di ko ànd ak mboole bokki taalu bi yëpp kon euh, lii mooy xam naa see da ngeen tàggoo bi ma yóbbaale leen rek ndax waxtu yi dañoo dab ba wax dëgg yàlla mënatuma ci yi dara moo tax dama leen di far yóbbaale leen tàggoo waaw di santaat baax a baax tey kër gi kilifa gi alhaaji Malick ñaan sunu borom moom sàmm ko ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ àndaloon liggéey bi alhaaji Malick moo nekkoon ci hmm. euh, xarala gi hmm. sëñ Baara Mbacke ngeen àndaloon ci kaddu gi seen émission keppaaru mag ñi la woon doon amee fii ci seen télé Rewmi TV ngeen doon ko topp ci 97 point 5 muy am dimanche bu jot 22h ba minuit lu ci jub yàlla la lu ci dëng matani doomu aadama la in uridu ila al islaha mastataatu wa ma tawfiqi ila billah wa aleykum assalaam wa rahmatullah